simple bi si suuf. macha allah voilà waaye Modou kan ma sa tax ma seet naag waaw. waaw moom moom moom daanaan la. Ah, waaw moom daanaan la waaw. moom ah. daanaan la waaw. Pendo Guissé alors euh, lan ngay wax sa fans yi nga xamante ne bii ñoom itam weeru koor bi yëpp c'est vrai que bu weeru koor bu ñu si duggee artistes yi dañuy lëlu. toog ci mhm. seen ruq donte yow sax yaa ngeek euh, beneen métier boo xam ne mhm. bokkul ak way yi mais tey bu ñu waxee ci ballonte ak euh, Pendo lan lay wax fansam yeeg waa Sénégal ginnaaw génn nañu ci koor gi. voilà man na Euh, manoom sama fan si personnellement ñi nga xam ne maa bëgg maa ngi leen di baalu àq parce que nag bëgg nit koo xam ne tout le temps nit yaa ngi wax tout le temps ay affaire yi ngi moom tout le temps yu bari ngi ñëw ci moom dafa metti comprendre nga donc mhm. maa ngi jéggalu képp koo xam ne rek toog nga sax fenn dégg ñu wax ci man dara sax nga défendre ma mhm. maa ngi lay baalu àq maa ngi baalu àq adduna bi yëpp mhm. di baalu àq samay propre xarit am na ñoo xam ne dañ maa bëgg te yàlla rek tax bi déggee ci man dara mbaa ñu bindal ma dara rek seen xool dafay metti donc loolu maa ngi leen ciy jéggalu bu wér a wér jéggalu képp koo xam ne tooñ naa la te yëguma ko parce que bàkkaar dafa sew hmm. mën ngaa def bàkkaar doo ko yëg donc man maa ngi jéggalu képp koo xam ne de tooñ naa te yëguma ko waaye man tam maa ngi baal képp koo xam ne tooñ nga ma hmm. maa ngi baal àq ñëpp man daal foofu laa ko mën a teg di wax sama fan si yi nag yéen moom mention spéciale hmm. di baalu àq ñëpp barki yàlla amul kenn ku may ku may bàyyi. Mm-hmm. wax wax nga léegi lu am solo mooy souvent sa fans yi dañuy jékki-jékki toog rek dégg ñu euh, bindal la donte parfois mën na nekk loo xamante ne bi sax ay fake news la ak yooyu. Mm-hmm. mais yooyu naka la ko Pendo di dundee. waaw man nag yàlla may na force bu force bu toll nii euh, xam nga boo nekkee xale comme par exemple tey euh, siiwaguloo nit ñi xamuñu la mais yaa yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi siiw ci domaine bi nga nekk. Mm-hmm. mooy man ci aar laa mës a dox donc wax bu ñaaw wax bu bon yooyu yëpp yàgg naa koo dégg donc man moo tax su man su amee lu ma naqari lu ñu bind comme li ñuy wax euh, euh, fake news su amee mm-hmm. nit yi lay gën a jaaxal samay mbokk lay gën a naqari nag parce que nit ñi des fois dañuy calculer waale suñu famille yi dañu am famille dañu am yaay am papa am ay rak am ay nit yu bëgg te yàlla rek te bëgguñu dégg si ñun dara lu ñaaw donc loolu mooy tax des fois man su ma ko déggee du ma def dara ñooñ laay xalaat ndax man damay xam ne li ñu bind du dëgg da man maa ngi ci sama coin di ko dox te heure bu ñu koy def rek day fekk ne man maa ngi ci boobu beneen time xam nga am yoo xam ne dañu koy def fekk la yaa ngi Amérique mm. dara xew fekk yaa ngi Italie donc yooyu doo ko keer keer doo keer yooyu quoi mais nag euh, fans yi nga xam ne ñoo nekk euh, ci mbedd bi surtout waa diaspora bi ñoom ngay gën a yërëm en fait parce que ñoom tout le temps ñu ngi si YouTube bi comprendre nga lu ma bëgg a wax donc ñooñu ngay gën a bàyyi xel sax ñoom ñoo lay gën a bàyyi xel waa Europe yi effectivement mais ñëpp daal maa ngi leen di boole di leen jéggalu man moom de ma part personnelle. képp koo xam ne rek dégg nga man ma def dara mbaa ñu bindal ma dara nga sa xol naqari ci. Mm. mbaa nga dégg ci man dara maa ngi lay jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax. dëgër bi pend dëgër ko force bi mu am courage bi euh, lan moo ko ko may. waaw li ma ko may nag loolu nag mooy euh, forger lépp ma nekk xale. Mm. parce que bépp ma nekk xale dama doon dégg loolu dama dégg ay yenn baat yu ma neexul. dégg ñu di ma wax yu wax yu ma neexul. may wax ne lii ñu may giiñ wala lii ñu may wax duñ ko gis donc loolu bokk na ci lu ma forger. donc souvent bu ñu la waxalee yenn yi wax yi mën na ñëwaat ba egg ci ci yow. ah oui day egg si man wala mu egg si sama ay rakk wala dara mais ñoom xam nañ ma. parce que koo xam ne man man nekkuma ci yooyu man dama rampe ci aar bi. Mm-hmm. comprendre nga donc koo xam ne 1 ba 26 su ma neexee dama doon wax Sénégal 1 ba 26 maa fi dàqoon fecc parcelle. te lu ne dégg naa ko ku ma fekkee ñu te ko ma gañe ko du fecc dem mais. dem benn moment boo xam ne da ngay dégg yu nekk bi nga nekkee xale donc loolu dalay lay forcer boo màggee nga yor benn genre jikkoy góor yooyu xam nga <laughs> après yooyu nag mooy xam nga moo lay jàpp daal moo lay jàpp ba donte donte dina metti sa yaay wala parfois sa yaay ngay xool mu metti ko. sama yaay da koy metti ak samay rakk yëpp samay rakk da leen di metti samay rakk da leen di parfois ñu bind dara mu metti sa rakk surtout sama rakk yu du Kara wala Kaja bu wala Demba am personne da koy metti Démb mi nga xam ne mu ngi ci biir aar bi léeg-léeg ñoo xam nga euh, moom peut-être du ko du ko naqari man daf may naqari man bu ñu ma bindalee dara man li ma koy dundee ak moom ni ma koy dundee du doon benn démb du xam nga nag bu nu bokkee yaay. Mhm. ñu bindal la dara ay nit yoo xam ne ay sénégalais lambda yoo xam ne xam nga saaga la ne ci internet bi di la wax yoo xam ne. ku ci taxawoon sa kanam du la ko wax ku ci feeñaloon boppam du la ko wax koo xamoon fu mu dëkk du la ko wax parce que ñëpp xam na ne léegi cybercriminalité mi ngi fi pour ku la wax lu la neexul nga yóbbu ko fa te du am wax mhm. ñoom ñoo lay wëral seen bopp ñoo lay woo mais ñoom dama yërëm samay rakk yërëm samay propre xarit yu may àndal te instant bii nii dama dolleekuwaat mooy dama am jëkkër dama koy calculer waale calculer samay xartu jëkkër calculer samay mbokki jëkkër ndax dina am ñun ñu ne oui am ñu ne non ma calculer sama wujju sama rakk ji maa ngi koy nuyu de passage daba sekk di ko wax maa ngi lay ñaanal yal na yàlla may euh, fan yu bëree bëri ñuy dund ko ay at yu bëree bëri ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu passage waa saint wii yëpp xam nga donc damay bay waale xel ñooñu donc ñooñu tamit di bind wala ñiy euh, euh, def ay kii nu tudd sax commentaire nañuy bàyyi waale xel mhm. ci man dama am wujj dama am ay mbokki jëkkër est-ce que comprendre nga li ma bëgg a wax. loo ma bëgg a wax wëral sama numéro man bañu ma ko ma yedd de est-ce que xam nga Sénégal ba mu daj sama numéro la fi moo fi gën a sakkan. dama jëlal sama numéro nga woo ne ma penn de man sa xarit laa waaye gis naa la nga def lii bu defaat lii après damay bàyyi parce que nit laa kuy déglu mais sénégalais ni ñuy yeddee mooy dañ lay xas est-ce nga li ma bëgg a wax li ñu la bëgg a wax dañ la koy wax te loolu tamit du nga war a xas nit nga dem ci TikTok bi nga taal sa TikTok di ko xas EPN gisee yow di non non boo ko gisee dama la yóbbu ci cybercriminalité. est-ce ko ma li a wax. bu fekkee ne comme boo ma faawee da ngay wër wala bu ñu la yónnee ci man da ngay wër sama numéro ba gis ko kon boo gisee ma def naka sedul noonu ci télé bi dama la ñaan loolu dama ko lancé woon yàgg na jël sama numéro nga ne ma sister wala nga ne ma penda lii lii nga ma gis nga def ko de waroo ko woon def xam nga dama naan la amul problème dama lay déglu parce que nit kuy déglu laa xam nga ki ne soo gisee la naqari woo ma moo ma gënal nga nga def sa TikTok wala nga def sa vidéo di ma ci xas parce que soo ma xasee yedda too ma te damay fayu mm-hmm. te su ma xamee fi nga dëkk doo fanaan sa kër mbaa bu fekkee guddi nga ko def bu dee bëccëg nga ko def parce que am naa plainte mi ngi cybercriminalité contre X. ba pare da ngay xeex en plus. non non du xeex bi sax en dehors de xeex xeex mooy ragaluma mais bàyyi naa nag léegi nag am naa jëkkër léegi. te xëy na naqari deret bi sax xam naa li ma amul woon la woon léegi rek mais léegi moom naqareetuma deret léegi moom lu ma waxu ma ree ah, mais kon kon teg nga teg nga pompe à gaz beeg goon beeg lépp. non non yooyu nag du ko denc du ma ko pompe parce que réew mi fi toll la. ba léegi yaa ngi doxantoo. pompe a gaz ba léegi moom mi ngi ci man goon mi ngi ci man. mais goon bi nag du ray États-Unis la juge mais du ray comprendre nga. goon bi voilà dalay nelaw loo juste que dalay nelaw loo. yaa ngi dégg di nga nelaw ba dooma taal xam kon daanaka dee nga yow. <laughs> gon la buy nelaw loo waate d' accord. alors waaw euh, du la nelaw loo loolu da laa lay wax da si tànk laa la koy dóor du la nelaw loo. Pendo <laughs> Guissé da nga am complicité ak say parents ah. lii rek wane na ko jour it nga ñëw donc euh, passé ko ak sa yaay euh, lan mooy sa diggante ak sa yaay. waaw sama yaay ak sama famille yëpp ah ma tey sax tey tubaar maa ngi ñaan sama papa yàlla na yàlla fëgg boppam bu baax a baax léegi lañ jógee ci teew mi ngi foofu donc ba nga ko ñaanal euh, yàlla na ko yàlla may wér parce que tey la ñuy doog a xam ni jur dafa am solo dafa gën a amati solo tey bi ñu demee fekk sama papa tey la ñu mës a dund feet jot feete wuñ ko ak sama papa oh korité bi tey franchement parce que tout le temps ñu ngi ko doon feyte ak moom léegi ni ma ko fekk ci hôpital bi dama ko doon reetaan loo comprendre nga kon loolu manqué nañu vraiment tey franchement suñu kër xam nañu ne daal kilifa day nekk ci kër daal franchement ñu ngi koy ñaanal sam papa na yàlla fëgg boppam bu baax a baax mu dellu si waat ci njabootam tubarkàlla gisee aliment bu yal na yàlla fëgg boppam bu baax a baax a baax a baax man nag dama dama j'ai l'habitude dama am habitude bi parce que waru mu foon fekk sax sama dem su ma demee feneen xam naa ne su ma fekkoon Italie heure bi dama fay ne di jooy te doo leen am lii nii du dëgg. donc lool la mais tout le temps damay bëgg di ñëw di feetandoo ak sama famille. sama jabaru frère sama yaay sama sama tante comprendre que samay doomi baay ñoom ñëpp ñu ñu nekk feet day neex waa dafay neex dafay famille la daal. souvent dañuy wax. del déglu del xool.